yàlla bu leen ruus yàlla bu nu ruus yàlla bu leen ruus yàlla bu nu ruus yàlla bu yàlla faj aajo yi te yàlla faj feebar yi te yàlla taxawunu mën na ko te yonent bi la am te moo nu fi dajale ci barkeem yàlla sàmmal nu jaboot yi sàmmal nu ñu yaram yi sàmmal ñu bakkan yi ak ruux yi te yombal yoonu yiw yo- yo- yombal yoonu yiw yombal yoonu yiw te jàpp li ci sunu loxo tabarkal la ba dara bañ nu fakkatal nu ko yàlla def nuy daje nii rek te dajewaat